asalaamaaleykum mbokk yi jaa ngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na ba teg ay simili xibaaru digg bëccëg yi bokk na ci Fatou Binta Camara ñaari weer ginnaaw si foofee ca Tambacounda tey la ñuy xoolaat yi fi ni mu demee tubaab di ko woowee reconstitution des moom mi ñu njort ni moom moo ko faat nag di Alioune Badara Fall dinañ ko génne ci kaso ba yóbbu ko fa ci bi ñuy def liggéey boobulee leneen ci ay xibaar muy kii di jëwriñ bi ñu dénk wàllum jënd mbeeg njaay bi ak euh, PME di dalal xel yi daanaka fukki fan képp des ci tabaski euh, moom Aminata Som Diatta ne marché bi nag lépp luñ ci soxla euh, ci wàllum ndugg ak lu ni mel dina am ba mu fees dell yëkkati na it yeneen kàddu ci jafe-jafe yu am ci yenn secteur lu ci mel ni wàllum ciment ak mburu bi jur coow fan yi yëpp di ngeen ko dégg ci kanam tuuti ci biir xibaar yi ca diwaanu Kaolack moom dawalkatu gros porteur taxi bagage yi dañoo mer bay futu ndax nee ñoo xam ne it moo leen tax jóg dañuy ñëw di gàllankoor seen i liggéey bu baax a baax ba tax na ñu ne kilifa yor dem beeg euh, dikk bi nañ ci jóg bu baax a baax euh, lijjanti mbir moomu leen wàllum tàggat yaram ak basketball Moustapha Gaye moom mooy entraîneur bu bees bu équipe nationale euh, ci góor ñi mu wutu ci poste boobule Abdourahmane Ndiaye Adidas fédération sénégalaise bu basketball nag ne waxtaan wa ñu dooroon seen digg ak Adidas moomu leen mujj wuta antu ba waral ñu jël dogal timis tuuti ñu yaatal ko a ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi xibaar yi ñu dooree ko benn accident bu am ci autoroute à péage diggante euh, kon euh, mbuur ba Ila Touba benn camion moom moo daal di saaraan ba noppi daanu ñaari nit euh, faatu ci saa si muy dawalkatu camion bi ci boppam ak apprentiem yëf yi mi ngi amee sànq rek xibaar bi tukkee ci suñu ndaw la ñu toogal foofee ca diwaanu Mbour di Abdourahmane Diallo dañuy wutali ji Tambacounda Moussa Oumar Gueye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay soxna Natta. waaw niñ ko junjee sànq ñaari weer ginnaaw ba ñu faatee Binta Camara foofee ca Tambacounda ca këram tey lañuy def li ñuy duppee reconstitution des faits maanaam xoolaata yëf yi naka la demee te ki ñuy njort ni moo ko faat moom euh, Papa ba dara Fall moom mi ko nangu sax dina fa ñëwaat Moussa Omar Gueye yëf yi naka la nar a tëree foofu le jërëjëf ni nga ko waxe dañu jëkkoon wax ni ci juróom-ñeenti waxtu ci suba la waroon a am fi nga xam ni moom mooy ci di quartier Liberté Sare Guilel fi nga xam ni mooy kër euh, directeur général Malal Camara waajuru góor kii di soxna si Fatou Binta Camara waaye nag bañ fa yeggee ci suba si daanaka gardien bi lañ fa fekk muy waaje génn ngir dem ci noonu nag ñu ni daal dañ ko dàqandi ba ci ngoon jàpp sax ay euh, juróom-ñeenti waxtu vingt ci guddi ndaxte dañu bëgg bu fekkente ni dañ koy def ñu def ko ci saa sa nga xam ni jamono jooju la njombe si amoon mën jàpp mooy tey ji lu bees li nga xam ne jot nañ ko gis ci xibaar ki nga xam ni moom mooy Malick Ako Diop moo nekkoon vigile gardien foofu ci kër directeur général Malal kamara nga bi nga xam ni ci ndorteel enquête bi moom la ñu jàppoon foogoon ni moom moo faat bakkanu kii di Binta kamara laata kon ñuy teg loxo ki nga xam ni moom mooy Pape Alioune Fall fi mu nee nii nag moom xamal nañu ni gannaaw boobu daal bi musiba bi amee ci nag la ko directeur général Malal ni jéggal na ko mën na dem xaar dina ko wutal leneen boobu ak négé ni daal daanaka dafa nekk amut xamle nee na nag ci noonu mi ngi ñaan nguur gi ñu wutal ko ci fonction publique gannaaw fukki at ak juróom mi ngi doon yëngu ci wàllu wér-gu-yaram santé ci noonu moom boroom kër la leneen lu ñu mën a jàpp itam naata ngir jeexal mooy li jëm si wàllu reconstitution des faits bi ñu ci amalee tuuti gëstu xamal nañ ñu ni nekkul li nga xam ni lu obligatoire la ki nga xam ni moom mooy juge instructeur bi daal moom mooy xool ci bëgg-bëggam bu fekkente ni bëgg na ñu amal lii di reconstitution des faits ñu daal di koy def ci teewaayal enquêteurs yi teewaayal juge d'instruction bi teewaayal ñi nga xam ni ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa police criminelle yi fa fekkoon waaye nag ci euh, fàttali rek ci jamono jii nag li nga xam ne moom la ñu tënk daal askan wi li leen gënal mooy procédure bi judiciaire bi mu nekk li nga xam ne dafay gaaw lool ndaxte gannaaw ki nga xam ne moom la tuumal moo faat nangu na ni avoué na ni moo ko def donc li ñuy xaar rek mooy chambre criminelle daal di ibbi ay buntam ñu daal di àtte ki nga xam ne moom mooy Pape Alioune ñu xool ana ne moom moo faat Binta kamara ñu ngi koo teg loxo ñaari fan ginnaaw ba njombe bi amee woon yëf yaa ngi amoon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bi ñu weesu ñu dellu si ci mbir mi yëpp ak ni mu demee ak Fatou Dieng. reconstitution des faits ñu koy xaar tey jii ca Tambacounda ki faatoon Binta Camara di delluwaat ca bërëb bi mu ko defee woon police procureur partie civile àttekat bi ñoom ñëpp dinañu teew. Alioune Badara Fall dellu siwaat ci xew-xew bi amoon euh, ci kër directeur bu agence de développement local ci guddik aseer la woon fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai bële ca gox bu ñu naan Saare Gileel nekk ci diwaanu Tambacounda moom doomu Malal kamara ñu fekk ko mu faatu ca kër ga. bu nu sukkandikoo ci communiqué bu police Binta kamara dañu ko xoj ba mu faatu ay investigation nag ñu amal ko ci bërëb bi. ñu ko doon amal nag di équipe bu commissaire balde jiite commissariat urbain bu Tambacounda ka doon wattu kër ga moom lañ ca njëkk a joxoñ baaraamu tuuma daal di koo téye gannaaw ba ñu amal yeneen gëstu gëstu yooyu yóbbu leen ba kër benn dëkkandoo ba noppi itam doon xaritu njabootu Camara Pape Alioune Badara Fall juddu ci atum 1986 ca Tambacounda ci jàkkaarloom ak laajkat yi. mu mujjee nangu ne moo faat Binta kamara ñu amal ay perquisition ca këram fekk sax téléphone portable bu gune gile ci ab néegam dëkk bi yëpp jommi njàqare juddu ay manifestation ñu amal ko ci réew mi askan wi ñëpp taxaw takku wane seen cofeel waaye itam masta wu njabootu Binta kamara ñu ne sax yoon na def liggéeyam moom Binta kamara sax jaar fu mel ne école polytechnique bu Ndakaaru amoon na ñaar fukki at ak jërëjëf Fatou Dieng ñu dem ci euh, tàggat yaram euh, wala boog sax ñu dem ci wér gi yaram wax ci euh, paludisme muy sibiru daanaka boo demee ca Kolda ñu bëri ñuy dem ca kër docteur loole moo leen fay yóbbu ci atum 2018 lu toll ci juróom-benn fukk ak ñeenti junni ci ay doomi aadama ñoom ñoo amoon ay jafe-jafe ci wàllu jàngoro boobu boobule xale yi tamit ñoom daanaka téeméer boo jël fukk ak juróom-benn yi ñoom lii di sibiru moom moo leen sonal reportage ca Kolda ak Abdoulaye Diallo. 88 mille ay tout tànk yi amee ñetti at ba fukki at mooy nombar gone yi waa kër docteur yu district sanitaire bu Kolda fas yéene aar ci feebaru sibiru. Euh, donc dañuy renforcer euh, prévention bi moo tax cet fois-ci ñu def euh, lu ñuy wax campagne de simio prévention du paludisme saisonnier jëmale ko ci tout tànk yi nga xam ni ñu ngi am ñetti weer ba fukki at mu nekk campagne bu am solo boo xam ne dinañu jàppale ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex sibiru si ci Kolda nga xam ni. Euh, xam nañu zone boo xam ne la sibru daf fee daf am doole waaw boo xoolee bu ñuy xayma ñi war a jot euh, euh, juróom-ñett fukki junni lu mu néew néew juróom-ñetti fukki junni tout tànk lañu ñu bëgg a traité au niveau donc du département. ci nawet bi sibir mooy feebar bi gën a tax askanu Kolda di dem saytu seen wergu yaram ca kër yi. prévalence bi mi ngi gën a bëri dans l'arrondissement de Mampati euh, bu ma jëlee par exemple lu ñuy wax par exemple euh, la commune de Dialambéré boo seetloo foofu bu ñu jëlee mille personnes euh, presque les huit cent def nañu accès palus donc loolu day wane ni palu bi foofu la gën a bëri. boo xoolee également à l'échelle départementale donc am nañu lu toll ak juróom benn juróom fukk junni cas de palu en deux mille dix-huit donc en deux mille dix vraiment ñu fas fas yéene wàññi loolu. ak euh, campagne bi nga xam ne def nañ ko jëmalee ko ci ci distribution sànq yi ak campagne bi nga xam ne ñu koy euh, waaj a def également jëmale ko ci tout tànk yi. ci wàllu campagne sànq yi ñu doon maye district sanitaire bu Kolda daanaka joxe na lu jege 171 000 sànq yi ñu nandal la. diwaanu Ziguinchor foofu nag hôpital régional bi ay euh, semaine ci ginnaaw am na lu mu fa lancé woon mu di ab téléthon ngir fexe ba am juróom-ñetti téeméeri millions yi mu soxla ngir jënd ay euh, jumtukaay defaraat euh, këru fajukaay boobule bu baax a baax waaye boobu ba léegi ñu bëri joxe woon nañu seenub kàddu te gisuñu benn dërëm kii di directeur hôpital ba di docteur Martial Colibop nag di leen woo ne lépp lu ñu waxoon nañu ko jëfee mu yëkkati kàddu yooyu le ci jamono bu mu bokk recevoir matériel médical buñ ko jox foofu le ñu déglu ko ci micro Boubacar Dias ak Lamine Mandia solidarité moo tekki ne kenn mënul dara ñëpp jàpp ci ñoo mën dara loolu nag loolu la ñuy woote alak bés bu nekk pour ñëpp mun a jàpp ci biir te loolu moo tax maa ngi woo ñi nga xam ne ñoom ñoo sànni woon seen kaddu ci téléthon bi wax ne dinañ joxe temps ñu ngi leen di ñaan di leen di wax ñu ngi ci téléthon bi ba léegi parce que li nga xam ne moom moo nekkoon euh, lu ñu buggoon jot ci téléthon bi commencé nañ ko ñu ngi tabax euh, service bi nga xam ne koo xam ne mu ngi ci diggante foofu lañ la mën a accueillir ñu ngi koy tabax des na nag ñu tabax euh, fi nga xam ne foofu la médecin di loger ak équipement yi loolu nag Euh, li nga xam ne nit ñi promettre nañ ko buñ ko indee loolu yëpp dinañ ko mën a defar te maa ngi leen di sant di leen gërëm ñoom ñëpp ñi joxe ak ñi joxewul ñëpp ci seen engagement parce que considérant naa ne comprendre nañ euh, li tax ñu defoon téléthon bi objectif bi nga xam ne moom lañ doon xaar ci diwaanu Fatick ak Kaolack ñoom nag li leen la jël witt mooy ñi nga xamante ne ay soxna lañu bu ñuy mucc yenn saa yi dañuy faatu wala sax ak seeni doom ba tax na am na projet bu ñu fa door lu toll ci ñeenti milliards ci sunuy koppar lañ fa génne ministère bi ñu dénk wàllu paj bi moom moo lëkkaloo ak agence coopération euh, bu euh, Corée ñu fas yéene kon daal di euh, jàppale ñaari région yooyu la lu ci mel ni tabaxal leen ay bërëbu fajukaay indi fa ay jumtukaay waaye tamit gën a tàggat personnel bi nekk reportage Aminata Goudiaby ak Faly Gueye suñ sukkandikoo ci ay chiffres yoo xam ni autorité médicale yu Fatick ñoom ñoo ko am ne ñu ci atu 2018 ñaar fukki jigéen ak juróom-benn ñàkk nañu seen bakkan bi ñuy wasin lu tolloog ci téeméeri xale ak ñaar fukk ak benn itam ñu ni dañu dellu bi ñu juddoo ci biir région bi agence coréenne de coopération internationale ñu koy wax COICA ñoom nag dañu bëgg gunge nguurug Sénégal ba wàññi jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy faatu bu ñuy am doom ak itam xale yi nga xam ne dañuy juddu di dellu mu am nag projet bu ñu lancé ci wàllu woowu nag ñu ni ci région yu Fatick ak itam yu Kaolack lañ ko fas yéene doxalee république gu Corée du Sud dañ ñu gunge ci benn projet bu mag pour jàppale lépp lu jëm ci santé maternelle ak infantile lépp lu jëm ci santé bi xamante ne jigéen moo ko moom jigéen wérul mais aussi ak ay doomam loolu nag ñu nama ko def ci ñaari région muy Fatick ak Kaolack. projet boobee nag nga xam ne dafa jug rek ngir gën a dooleel système de santé bi ñeel jigéen ñi ak itam xale yi ñu ni liñ ci def ci koppar mat na 4 milliards ak genn wàll daañu ci defaraat tabax ci itam ay bërëbu fajukaay ci région yi di Fatick ak itam Kaolack. dans cette qui est à su ma jëlee exemple ci Fatick gi nga xam ne fii la ñuy lancé projet bi fas yéene nañoo tabax ca Passy ab centre de santé nga xam ne dañu koy tabax équipé ko muy ci Fatick ak itam ci kaw Kaolack yëpp dañuy defaraat bu fajukaay yi mu am ay équipement yu doy. ba ñu mën a ñoŋal wér gu mu jigéen ñi ak xale yi. et l'équipement des centres de santé. avec euh, bloc euh, de soins obstétricaux et néonataux d'urgence. personnel de santé bi nga xam ne nag ñoom ñoo nekkee ci ñaari région yi la ñu sàkku ci ñoom ñu fonk projet bi loolu projet bi nag ñu ni juróomi at lay ñu wax leneen niñ leen ko junjee sànq tabaski daanaka fukki fan ak lu te lu topp képp moom moo ci des waaye bu ginnaaw xar yi nag ñii di kër yi ñu ngi xalaat bu baax a baax ndugg yi ci marché bi te léeg léegi dafay am ay jafe-jafe ba tax na jëwrin bi ñu dénk jënd ak jaay di dalal xel yi ne benn jafe-jafe du ca am moom Aminata Som ci benn ndaje bum doon am daal dina wax it ci ay secteurs yu am jafe-jafe fan yii lu ci mel ni wàllum cimenterie ak boulangerie maanaam mburu mi ak coow li mu yëkkati Maguette Souaré jàlloo ak Thierno Laurent Mendy ñu nga woon ca ndaje ma tabaski ay fan rek moo ci des ak approvisionnement bi nekk na lu ñuy waxtaanee waaye jëriñ bi ñu dénk wàllu njëndam njaay mu ngi dalal xel yi. amul benn tiitange bu ñu war a am ci ci côté googu. ci wàllum di si lu jëm ci disponibilité produit yooyu ci tabaski bi nga xamante ne foofu la ñu moom la ñu jëm. ci lu jëm ci menace de grève bi boulanger yi dal di waxoon. ministre bi jàpp na ni ab accord daal dinañ ko am ngir exécution bu mise en neuve bu texte yi. bu ngeen fàttalikoo avril euh, bi boulanger yi ne dañuy grève toog nañu waxtaan def benn protocole d'accord donc ci protocole d'accord boobu am na ay points yoo xamante ne loolu la ñu posé sur la table te loolu biñ fa jógee daa dan defar nañu def nañu ay comité comité yooyu euh, boulanger yi bokk nañ ci meunier yi bokk nañ ci consommateur yi bokk nañ ci administration bokk nañ ci donc tey jii lu ñu mën a jàpp mooy euh, d'accord nañu ci texte yi danañ ko jébbal suñu kilifa yi bu ko defee buñ ko adopté ñu mun ko mettre en œuvre te loolu dina dimbale secteur boulangerie bu bu baax mu assainir. Aminata Assome Diatta ñëwaat na tamit ci jafe-jafe yu ñu gis ci secteur bu ciment bi mu nekk ab secteur boo xam ni dinañ ko régulariser ak comité technique bi ñu taxawal boobule comité liggéeyam mooy xolaat bu baax. ci mbay mi am na benn xeetu gunóor boo xam ne ay weñ la sax daanaka ñu tuddee ko mouche de fruits maanaam dafay dem ci yenn fruits lu ci mel ni mango di ko yàq de CEDEAO taxawal fi benn projet ngir xeex ko ak réew yi ci bokk yëpp ginnaaw ñeenti at nag bañ ko doxalee ñoom ñu ne lañ ca doon séntu lu ci bëri am nañ ko waaye nag la ca des mooy lépp lu luñ ca jëlee ci ay xam-xam ñu jël ko boole ko ngir mën koo doxal naam am na ñenn ñu bokk ci projet bi jàpp ni li ci des ñu war koo def bëri na lool ab ndaje lañ doon amal fii ci Ndakaaru Fatima Touré ak Youssou baaw ñu nekkoon juróom-ñetti pays yu bokk ci CEDEAO daal di defoon benn projet bi nga xam ni rek dafay xeex weñ yi nga xam ne day yàq li nga xam ne moo di fruit fii ci Afrique de l'Ouest ci atum 2015 tey nag ñu daal di def ñeenti atu expérience waaye tamit am ay résultats yu baax projet bi nag mu ngi waajal jeex ñoom ñi nga xam ne nag ñoo ko sekkoon daal di tiré bilan bu positif. ruur la bu dugg Sénégal duggaale ci Afrique sowu jant yëpp muy weñ boo xam ne dafay yàq mango. projet bi yàlla def ñu dem ba 2015 yàgg na nag mais ñu CEDEAO doo ko am projet bu lëkkalee juróom-ñetti réew tey bi muy jeex mujj na ñett ñeneen réew euh, fekk si nañ ñu ba projet bi fukki réew ak benn yu CEDEAO ñoo ko bokk donc tey clôture lañ doon def ak capitalisation capitalisation nag mooy liñ ci jëlee ci lu baax ñu xool nuñ koy wéyeele comme ki doon xeex mi ngi fi demagul dañ ko bëgg a xeex ba mu dem. ngir rek am résultat yu positif yi le bu ñu sukkandikoo ci kàddu directeur agriculture ak développement rural dañoo teg rek benn plan stratégique bu baax. li ñu def bi njëkk bi moom mooy taxawal ab dispositif buy tax ñu mën a saytu saa bu fekkee ne rek weñ dugg na ci toolu mango yi wala yeneen dinañu tax ñu mën koo xam ba nag jël ndogal yi ci war ndaxte dañuy faral di wax booy xeex fagaru moom mooy gën. ñetteel bi ci topp nag moom mooy fexe ba producteurs yi ñu am ay produit rawatina nag ay jumtukaay yoo xamante ne dina yokk seen xarañte ci liggéey bi. waaye nag ay défi mënul ñàkk bu ñu rek sukkandikoo ci kàddu Alain Sy Traoré. réew yi def nag exportation mango yëpp boo xoolee seen tool yi yëpp du yëpp lañu ñu couvrir te jumtukaay yu xarale yi nga xam ne développé nañ ko itam du yëpp ci producteurs yi ñoom ñoo ci am accès. li ñu war a def nag moom mooy kon fexe ba producteurs yi ak planteurs yëpp jumtukaay yooyee ñu jot ci kon yaakaar naa ne ci wàllu communication bi dafa am lu des. ñeenti at ñoom ñi le daal di lëkkaloo ak agriculteur yi nga xam ne rek ñoom ñoo bokk ci pays CEDEAO yi nga xam ni adhéré nañu ci projet bi lee tey nag ñoom ñu xamal ni rek xeex bi day woy daal ubbi yeneen i perspective ngir rek daal di génne li nga xam ni moo di mouche des fruits fii ci Afrique de l'Ouest màdd bi ngeen di gis nag ci Sénégal léeg mu ne xuus ci euh, marché yi boo moyul nag dinañ dem ba dootuñu ko tegati gët ci euh, Sénégal loolee moom moo tukkee ci benn jàngat boo xamante ni def nañ ko ba tax na ñu ne li ci euh, saafara kay mooy fexe ba labelliser ko maanaam ñu xam ne màdd boobule fii la jógee Sénégal ndax bokk nañu ne ci yi gën a neex te yi gën a baax ci àdduna bi am na benn sax ndaje bu ñu amal fële ca diwaanu na ak ñi yëngatu ci màdd boobule reportage Boubacar Dias ak Lamine Mandiang madde bu ñuy wax it saba sénégalensis dafa doon ab gàncax bu sénégalais yi bëgg lool waaye suñu moytuwul dafay daal di disparaître te ñaari mbir ñooy doon sabab la. ñëpp xam nañ ne tey jii madd dafa dafa am loo xam ne moo ko nar sànq muy euh, li nga xam ne mooy daay daay gi nga xam ne moo am ci àll bi tey ji dafa bëri daay chaque année te daay yooyu xam nañ ne yi nga xam ne ñoom la gën a sonal tey jii madd bi ci la bokk. parce que ñëpp madd xam nañ ne madd ni muy ni muy saxee ci àll bi bu safara si ñëwee rek yooyu lay njëkk yóbbu. peuplement yi nekk ci àll bi dañu màgget léegi bu fekkee ne fexewuñu ñu renouveler ko c'est comme les climatique climatiques suñ koy wax nit ñi dañuy yaakaar ne dañuy rêver parce que tout simplement xëy na yëguñu ko mais d'ici quelque temps suñu moytuwulee madd dootul amati. waaye madd bu ñuy fekk Sénégal. dafa doon madd bu am qualité. te qualité bi maanaam macha allah euh, ferñeent yi dafay am solo ci doomu aadama màdd nag daf ci bokk te màdd Casamance bi dafa dem léegi ba dafa am benn tur parce que ay xalaatkat ñoo ay saytukat ñoo ñoo ko saytu. génne ko ci rapport wane ne madd bi am na qualité am na lu muy def si nit te am na njëriñ ci économie ba nga xamante ne tey dañ dañ ko war a protéger ndax am na ñeneen ñi ñoo xamante ne bu ñu ñëwee dinañ am yeneen madd yu jógewul Casamance te dañ koy tuddee madd Casamance pour rek mu jeex ndax nit ñi ñoo ko soxla. ñu daal di joxe alerte yi ci Bignona ci ab leel bu ñu amal ngir xalaat ci lépp lu mën a tax ñuy aar madd buy koo Casamance te mu ànd ak tuuru diwaan ba. jëwrin bi ñu denk mbay mi moom nag euh, mu nga woon ca Tiwaawan euh, démb euh, ki ko recevoir di xalifa général ci Tijanes di Serigne Mbaye Sy Mansour moom nee na nag Sénégal gi yëpp dañoo war a mànkoo ñaan ngir ñu am nawet bu baax yeneen kàddu yu kilifa gu tedd gi yëkkati mooy Sénégal nañu fexe ba xool ni ñuy doxee ak ni ñuy waxee rawatina sax nag ni ñuy waxee ndaw ñi nañuy gën a kon respecté ñi nga xam ne ñoo di mag ñi Cheikh Anta demoon na ca Tiwaawan ak Seylatia xalifa général des Tidianes di Serigne Mbaye Mansour ginnaaw bi mu dalalee jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu mbay mi ci biir réew mi dikk lu yaatu ci nawet bi ak taw bi nga xamante ne yéex naa wàcc ci réew mi moom sax di xalifa général de Tidiane mi ngi sàkku nag ci askan bi ñoom ñëpp nekk benn fóot xol yi te sëriñ seek mag ñi ñëpp ay ñaan ndox ndox mi mën a wàcc ci réew mi saawaan baawaan tey jéem a jàppalante boppam soppil ñu xol yi soppil ñu xalaat yi boole ñu ñu ànd nekk benn njëriñ njëriñu réew réew mi jëwriñ ji nga xamante ne moom mooy yor wàllu mbay mi rafetlu lool kàddu yi nga xamante ne xalifa général des Tidiane yëkkati na ko ak dikk bi nga xamante ni dikk na ko fii ci Tivaouane ngir sàkku fi ñaan dañ ñëwoon fii tey Tivaouane ziare euh, xalifa général des Tidiane ñëw sàkku ñaan euh, xam nga ne Aliou fii dëkku ñaan la ñëpp xam nañu Tivaouane li mu représenté ci diine bi ci Sénégal li mu représenté ci développement même agriculture ci Sénégal xam nga fii mbay euh, dafa am doole fii comme ni mu amee doole Sénégal yëpp donc euh, dañ fi ñëw pour xale bi mu ñaanal njiitu réew mu ñaanal béykat yi mu ñaanal Sénégal ñu am nawet bu baax te barkeel. ginnaaw bi mu jógee Touba dikkoon fii ci Tivaouane dina wéyal tukkib nemmeekoom bi jëmale ko ci kilifa yi diine yi ngir ñu ñaan bu baax jàmm ci réew mi ak nawet bu mucc ayib. ñu dem diwaanu kaw Kaolack nañ leen ko doon waxee ñiy dawal ay camion te ñu ciy def ay bagage ñu leen di woowee si bagage ñoom nag dañoo mer bay futu ndax dafa am yeneen woto yoo xam ne yóbbu ay nit moo leen tax a jóg waaye ñu ne dañuy ñëw di xëccoog ñoom liggéey boobu lee te du yoon tax na ñu dem beeg bi ci réew mi faaw ñu a defaraat secteur boobule Ibrahima Diame ak Fally Gueye transporteur gros porteur yi lee yore taxi bagage mere lool seen nataan nekk ci transport public bi ndax nee nañu concurrence bu jaarul yoon bu jéggi dayo lañu ñu ak ñoom ci conférence de presse bu ñu doon amal lañ ko dénoncé. transport dafa am lu ko lu mooy oto yi def transport public dañu licence pour ëpp ay nit. oto yi def transport marchandise am licence pour yëpp marchandise léegi nag ñoom ñuy def am licence pour transport public dañuy ba li ñuy def seen transport public ñëw aussi suñ suñ suñ suñu suñu liñ moom di def transport marchandise ëpp minicar bu war a yëpp nit eb ko marchandise ba mu fees sur oto gis ngeen ne ni ñu taxawee duñu am fenn fu ñu dem parce que ñoo heure bu ñëwee ñooy dem rue d'Alva boo demantee rue d'Alva doo fa gis benn cab auto transport marchandise auto transport en bi rek ñoo fa nekk di jël ay bagages. ñu ne seen liggéey doxul seen camion dañ leen sax faf garé. ñun buñ toogee ba ñu naan safar yaa ngi xeex loolu boole ñu la te ñun waruñoo xeex mais nag li ñuy régulariser bëgg kenn ku ci nekk post ba nga nekk nga defal liggéey nga respecté ko ñu jàppale la ci. lii mooy li nga xam ne mooy li war a mën a ne dañuy nekk fii chauffeur yi ñu ngi nii kenn ku ci nekk am nga fi trois jours ou quatre jours yoo xam ne yi jógaloo fi nga taxaw moo waral nag ñuy woo kilifa yi ñu jóg réglementé secteur transport bi ku nekk ñu teg ko place am. teg ñi ngi romb autorité kenn kenn waxul dara ñun nag ay citoyens lañ te bëgguñu tëb de fajal suñu bopp donc il faut ñu joxe information bala parce que am nañ droit oto bu ñu fekk ngay yeb bagage te waroo yeb bagage ñu baare parce que ñoom ni ñu monté seen i coxeur ci sotti yi ba oto bu yëpp ay nit ñu wàcce ko ñu tam am nañ boobu sañ-sañ mais duñ fajal suñu bopp dañu informer les autorités ñi ko war a bi ci bi ci jiitu mooy euh, le préfet dawalkatu gros porteur taxi bagage yi le nag ñu ngi fu soriwul dara chambre de commerce ci wetu stade Lamine fa la ñu def seen siège social ak seen terminus delluwaat ci ndakaaru seetlu gi mooy bëri na ay euh, koñ yoo xamante ni saa yu fa duggee euh, jëf euh, gis fa benn crèche mooy foofee ñuy dénk tuut tànk yi waaye laaj bi ñu samp kay mooy ndax ñu ci bëri am nañ ay këyit ndax ni niñ koy doxalee jaar na yoon ak personnel bi ndax tàggat nañ leen tàggat bi ci war ba tax na jëwrin bi ñu dénk wàllum jàng bi nag nee na faw na fas yéene naa kon may gët lii di secteur boobule daal di koy defaraat bu baax a baax am na ndaje buñ ci doon amal fii ci ndakaaru Aïssatou Gueye Ba ak Ngone Mbaye ay professionnel ñoo ko seetlu Sénégal bari ay crèche yu jaarul ci yoon loole nekk lu dul defar li di yarub tout tànk yi ci garderie yii lee ay crèche yoo xamante ni ay femmes de charge lañ fay teg ñu téye xale yi ak di nëbbatoog di làqatu no il faut que crèche yi légal te pour ñu légal il faut que formation bi am ñoom ñee seen xel màcc ci wàllu woowee di xam ne rek ne jot na ñu daal di rek former di personnel bi liggéey ci bërëb boobule Euh, xale du da ngay jël rek saxal bi baron xale du da ngay jël rek bu sawee nga changé couche am xale du da ngay jël rek bu gëmmentoo nga boot mu nelaw déedéet xale dafa am leneen lu mu soxla li mu soxla mooy euh, ci biir yaramam am na loo xamante ni loolu lay judduwaale il faut am ku ko xam balaa ngay téye xale da nga koy xam. curriculum li ñuy jàngal programme préscolaire Sénégal boo ko méngalee ak programme yeneen pays mu mel ni ay Cap-Vert bu mel ni ay Togo wane na ne suñu suñu curriculum dañ ko war a gën a en tout cas fexe bu mu gën a mucc ayib. kii di directeur de l' enseignement préscolaire dal di rek jàpp ne ay réformes la ñu war a def si secteur boobu boobule. dañuy am ay école privée garderie privée préscolaire mais dañ ciy profité wale ubbi wale crèche mais ñi nga xam ne ñoom la ñuy jox xale yooyu pour ñu encadrer leen amuñu formation bi ci war te amuñu créé wuñu sax condition yi nga xam ne moo moo war pour que xale yi mën a ñu mën leen a encadrer encadrement bu bu baax. moo tax euh, ndaje bi ñu def tey mu am solo ci ñun. ab ndaje la bu boole ay réformateur ñu daal di nag andil xale yi xale yi am zéro ba juróomi at lii di curriculum créatif ngir mën a yokk seenum njàng. réew yi nga xamante ni seen i yoxoo jotul seen ginnaaw booy xool daanaka ñaar fukk ak juróomi millions yu tonnes lañ leen di yónnee ci ay déchets électroniques moo xam ay tele la ordinateur ay machine à café wala lu ni mel loo xam ne réew tubaab yi soxlaatuñu ko te loole bu yàggee dina jur njombe ci réew ya ndax ñoom ci seen bopp duñu xam naka lañu koy def kon faw ñu indi ci ay saafara am na waxtaan buñ ci amal tamit fii ci Ndakaaru Ousmane Diallo ak Pape Sangone juróom fukki tonn ci déchets électriques ak électronique la ñuy produire ci àdduna bi Sénégal jóg ngir xeex genn wàll ci déchets yooyu ñuy andi ci réew yu ndóol yi jaar loolu jaarale ko ci ab réglementation. décret bi maanaam lu am solo la ndax booy defar euh, booy nekk ci développement te ji Sénégal ñu ngi bëgg croissance ñu ngi ci phase boo xamante bi ne avec PSE bi lépp ñu ngi koy def pour Sénégal jëm kanam waaye loolu tamit dafa war a tax ñu taxaw xool. xam ne développement dafa am lu mu àndal li mu àndal surtout ci domaine numérique ci domaine utilisation ordinateur yeeg maanaam matériel électrique yi dafa ànd ak loo xamante bi ni maanaam euh, danger la pour population yi bu ñu deful ndànk ndax développement tamit baax na waaye tamit foog ñu xool ni ñu protéger environnement protéger aussi population yi. ngir saafara problématique déchets électriques ak électronique nag Sénégal moom am na benn centre de démantèlement. Euh, boo xoolee ci xayma aussi en 2008 daanaka xayma woon nañ Sénégal. presque douze mille tonnes de déchets électroniques donc 2008 ak léegi nag euh, bu nu ko defee étude boobu gis nañu ne marge de progression annuelle bu nu amoon c'est presque 17 pour cent donc loolu muy wane rek chaque année tey euh, déchets électroniques ak déchets électro ak électriques yooyu dañuy yokku. ngir gestion bu mucc ayib jëmale ci déchets électroniques yi agence de l'informatique de l'État moo ngi sukkandiku ci information ak sensibilisation. Euh, tey euh, ñu ngi liggéey avec le ministère de l'environnement le ministère euh, donc euh, donc de l'hygiène publique mais également suñu ay partenaires privés yu mel ni GGGI donc ñoom ñëpp tey ñu ngi ñuy jàppale. pour que tey ñu mën a am benn cadre réglementaire bi mën a gérer déchets yooyu yëpp buy mën a permettre ñu xam nu ñuy valoriser déchets verts yi mais également nu ñuy euh, détruire les les les déchets rouges nu ñuy renforcer donc la filière donc pour mën a permettre tey ñu mën a gérer de manière professionnelle les déchets électriques et électroniques. recommandation yooyu tukkee ci atelier bi nag dinañ ko appliquer ngir mën a méngóog ni àdduna bi di doxe wàllu politique ak Boubacar Camara mi xaatim pétition ñu fi door ngir xalifa Babacar Sall génn ci kaso bi moom mi jiite jëngu nag moom li mu bëgg mooy kii di président de la république jéggal ki fi nekkoon ay jamono maire bu Ndakaaru Front citoyen pour la libération de xalifa Babacar Sall démb gontu dina woon seeti Boubacar Camara moom Boubacar kamara ñu déglu ko ci micro bi Faye ak Modou Diop. mu nekk ñu yàgg xamante yàgg doxalante ay teraanga seen diggante yàgg ànd avant deux 2012 ñoom ñoo àndandoo nekk pouvoir bu demee ba loolu mu am njabootam am ñëpp nekk fi waajuram nekk fi nekk mag ñëpp ku mel noonu ñëpp ñaan la loolu war nga ci tenir compte pour nga génne ko ci kaso moo tax ñun ci suñu wàllu bopp en tant que ami en tant que frère en tant que collègue politique en tant que simple citoyen dañuy ñaan président de la république nga xam ne moom la yàlla teg ci loxoom ci jamono ji ñuy wax pouvoiru gracier ko mu mun a génn immédiatement ñu ñaan ko mu gracier li des nag ci situation politique am pour mu recouvrer ko totalement ba am droit yi mu war a am kooku combat boo xam ne moom Khalifa mën na ko mënal ba parlementaire benn exposition euh, photographie la euh, maanaam ay photo yu ñuy wane ngir rek gën a dooleel ak ak yelleefu soxna yi fii ci euh, Sénégal ñu ngi ko amelee fee ca musée de la femme Henriette Bathily ànd ceeg jàppale ambassade bu Espagne nekk fii ci Sénégal lépp rek ngir suuxat wala boog gën a jàppale soxna yi ci seen ak ak seen i yelleef Aïssatou Paye ak Amadou Ba. photo bu nekk nag ngeen mën ko gis ñu wekk ko ci mur bi. yenn yi nag du loo xamante ne tàmm nañ ko gis fii si Sénégal mu nekk seen bu inhabituel beneen bi tamit bu dugg see di xool exposition bi faaw nga bàyyi si xel mu nekk pratique photographique bu bees ngir rekk jëmal lu ñuy wax promotion de la femme ak égalité des genres. cette idée part ci exposition bi ñun dañu jàpp ne nag photographie dafa doon lu am solo ci campagne sensibilisation mu jëm nag ci yenn enjeux yoo xamante ne dafay euh, interpeller femmes yi euh, góor ñi rawatina itam société bi yëpp ñun dañu jàpp ne euh, image moom mooy gën a wax sax yenn saa yi kàddu yi li koy firndeel mooy boo xoolee nataal gi nii nga xamante mu ngi jëmmal ab soxna soo xamante moom. photographe la boo xoolee nag ay thématiques yu bëri mettre nañ ko en valeur ci exposition bi di nag mettre en valeur ay femmes entrepreneurs nga xam ne nag ñoom dañuy mujj sax euh, méngale seen ay œuvres ak tamit li nga xamante ne moom mooy liggéey gi ci wàllu kër gi. non rémunérés. mu nekk ab projet bu direction des arts rafetlu bu baax. vous avez bien voulu. di leen jaajëfal ndax photographie dañ ko gën a delloowaat gëddëm rawatina fii ci Afrique mu soxal nag ay yenn question yu ci mel ne égalité équité wala sax ak ak yelleefu soxna yi euh, ba nga xamante ni ñu doon ay actrices ëllëg. fi nag si musée de la femme Henriette Bathily expo bi. fii rek lañ ko mënoon amalee. am mbégte di ko rafetlu bu baax a baax ndax lépp loo xam ne dafay jëmbal àq ak yelleefu jigéen rek ñun musée de la femme dañuy sawar pour bokk ci parce que loolu mooy sunu liggéey. di leen wax nii kontaan nañu ci ànd boobu ñu ànd ak artistes yi bi exposition bii am fii. agence espagnole bu coopération bu développement nag wéy di accompagner ak di jàppale jigéenu photographie fii ci Sénégal. ginnaaw cosaan ak eh, aada ñu daal di eh, sóobu ci eh, tàggat yaram basketball ak kii di Moustapha Gaye mi nga xam ne moom moo nekk léegi entraîneur bu équipe nationale góor ñi ci discipline boobule mu wutu ca poste boobule kii di Abdourahmane Ndiaye Adidas bu ñëw sukkandikoo rek ci bataaxalu fédération sénégalaise bu basketball nee nañu waxtaan bi ñu sooboon ak Abdourahmane Ndiaye Adidas mujj wuta antu ba tax na kon seenub liggéey fii lay yam moom Moustapha Gaye nag ay jamono. Euh, moom moo nekkoon sax euh, coach euh, lii di aso lii di équipe nationale bu jigéen ñi ci wàllum basket afro basket féminin bi fii lay amee ci Sénégal fukki fan jàpp fukki fan ak juróom-ñett ci weeru août bi ñu nekk gaynde yu jigéen ñi bu ñu defee ay effort dinañ mën a génn ci premier tour bi loolee la ñu mën a jàngat naam sax nag am na ay match yu ñu naraamal ci week-end bi ak Côte d'Ivoire Égypte ñoom ñi ñu bokkal groupe A bi mu di ay match préparation Cheikh Sadibou Diarra ak Modou Diop Côte d'Ivoire ak Égypte ñaari réew yooyu ñoo di naataangoo Sénégal ci groupe A Afrobasket 2019 bi ñu jàpp ne premier tour bi warul tar ci gaynde yi. loo xam ne ne mun nañ ci tegu ci kaw la mais il faut ñu ñàkk pour def ko parce que ñëpp dañ jóge seen dëkk pour ñëw pour euh, ut si titre bi donc amul euh, dara loo xam ne da ngay ñëw dox rek jël dem. donc mun a am équipe bi équipe bu ndaw la wala équipe bu mag la dañuy jël match daal. au sérieux commencement ba fin. gaynde yi sax di dinañ xamante ak ñi ñu dajal ci ndorteelu compétition bi ñoom ak ivoiriennes yi ak égyptiennes yi dinañu laale ci benn tournoi bi bokk seen wàccaay. dañoo prévoir benn tournoi bu ñu organisé à Dakar samedi prochain invité Côte d'Ivoire invité Égypte yàlla def ñu war a bokkaat poule aussi loolu mooy wane ne peut-être voilà. Cheikh Sarr ak i gayndeem jël raaye bi ci ngoonu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ut bi lu mën a nekk la suñu leen taxawoo. daaw lu mu fi wone ah am na ay euh, firnde yu mu joxe. bu ñu góorgóorloo ba pare Sénégal yëpp jàpp ci nag na ci ñëpp jàpp vraiment encourager équipe bi pour mu mën a jëm ci kanam. équipe nationale bu Sénégal di door yoonam ngir jëlaat afro Afrobasket bi fukki fan ci weeru ut bi seen jongante ak Côte d'Ivoire teg ci Égypte laataa ñuy song deuxième tour bi nara am ay jongante yu tar. jërëjëf Cheikh Sadibou jaraa léegi dañuy dalal Mamadou Mouhamed Ndiaye ci li yéenekaay yi xëyee tey jile jërë ngeen jëf Adama Gaye bu yeggul ci ma waxoon waxeeti l'observateur ne ñu la mu def soriwu ko ubbil yéenekaay bi mbind mi ñu ne Adama gay da ko bind posté ko ci page Facebook am te muy wax ju ñaaw ju ñu jëmee ci président de la république Adama Gaye nee wax ju ñaaw ji ñu wax président de la république te ñu fekk ko ci page Facebook am moom defu ko fa te dana porter plainte contre X ngir ñu teg loxo ki dem ci page Facebook am wax fa wax ju ñaaw joojee président de ñu bind ca compte Facebook am l'observateur nee na moo ko ca bind waaye ba mu koy def jubluwu ci wala muy xotti wor may kenn yéenekaay nañu na nañu ko tëj démb ma nga woon ca tribunal ba ci guddi gi ci la ko naroon inculpé mandat dépôt ko jël ko yóbbu rëbës ab awokaam di maître Khoureysi Ba moo ko ci génnee les échos nañu ay awokaam xettali nañu ko ba démb jàllul jeel waaye tey ji la muy wax ba du fanaan rëbës dina ko tàyyi libération nañu Adama Gaye dafa jàkkaarloo enquêteurs yi mel ne ku jekk-jekk naax dem sax ba xàmmeetul page Facebook boppam ne dafa njëkk a taxaw waat wàcc na ñetti publication yi ci page bi moom bind ko fa enquêteurs yi wan ko ba wan ko numéro téléphone bi nekk ci page bi mu ne du moom ginnaaw bi ci lay soog a nangoo ni moom la waaye wax ji ñuy wax moom waxul lépp mësuta bind ne yàlla na avion bu njiit réew mi daanu yóbbaale Macky Sall Moustapha Niass Mansour Faye Aliou Sall ak procureur de la République Serigne Bassirou Gueye loolee mësu koo bind fenn libération nañu ginnaaw retour ji ci rëbës ginnaaw information judiciaire gi ñu sant garde des sceaux di maître Malick Sall mu taane ñu ubbi ab information judiciaire ci mbir mi moo ko wax démb ci làmmiñu boppam ba teg ci ne lu mu ci góobe gar ko nee na bi dootu mayeti kenn ak ku mu mënti doon muy salfaañe ba muy sàllawlu institution yi ci réew mi ku ko fi defati dinañu ko lijjanti ak yow moom maître Malick Sall ministre de la justice soleil national nee na ñoo taxaw na temm ci protéger ak di waggar ci institution yi ci mi ba kenn dootu ko fowee la tribune mel na ku naan ñu lu waay di waxati ci réew mi na doon loo xam ndax tekki mu di waxi pétrole ci réew mi jugati na yëral xët mu njëkk enquête dina kay coowal njubadi ak ndëngte moo taxoon ñu raxas loxob Frank Timis ci pétrole Sénégal bi ba mu set wecc waaye enquête dina kay nee nañu pétrole Sénégal bi ñoo ngi ci dégg benn waay boo xam ne tanewul Frank Timis mu di Eyong N'Diouk Adjouk Eyong ñu koy woowee NG Ayok ab avocat la bu bari ay dugg-dugg ci mbirum pétrole ak gaz ku yàgg am ay problème la ak justice tëjoon nañu ko ci Amérique ndax dañu ko jàppoon muy mbubboo turu jàmbur tuumay balancement d'argent moo ko dàqe ca Ghana waa ji di NG Ayok enquête yéenekaay mi ngi ñuy xamal ne am na ñetti tur yu ñu koy woowee l'observateur xëy moom it mel ne ku ñu woo ci wax ji mi ngi ñuy xamal ne xel yu bari tàmbali nañoo tey ci prix homme de gi Africa Oil and Power joxoon président Macky ak accord de partenariat gi am ci diggante réewum Sénégal ak plateforme kuréel goge nekk ci Afrique du Sud Jean Michel Seck jiite woon ni jamono société africaine de raffinage nañu ci l'observateur moom def na ñeen fukki at ci métier mi musuta di jàngat ak jaayantoo ñoom ñaar jamono jii Ibrahima baaxum dib analyste politique mi ngi wax ci journal bi la mu ca gis ñu gis ci xët mu njëkku la quotidien Abdoulaye Wade ak Ousmane Sonko di joxante loxo yéenekaay bi nañu ñoom ñaar àndandoo nañu ngir dalandoo ci kaw ñi fara ci opposition bi bu nuppi dem di wuy ji Macky Sall ci dialogue bu ñu woote le quotidien bind ne lii mooy front contre front frondeur yi ñu dàqe woon ci parti socialiste le témoigné mi ngi ñuy wax lu tax ñu bëgg dellu seen kër baay wax nañu it ne Barthélemy Diaz ak Bamba Fall ñoo ngi def seen kemtalaay kàttan ngir dellu biir parti socialiste mbirum Khalifa Ababacar Sall nag nag mooy jur jàng ji nga xam ne bu ñu ko réglewul ba mu féete boor dajalewaat njabootuk socialiste gi du yomb aji màkk yombul li koy firndeel mi ngi ci suur sursuwa benn ujaaj bu jigéen bu bàyyeeko woon Sénégal doon dem màkk moo faatu ci biir avion bi ci diggante Ndakaaru ak Médine jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye sant leen yéen tam ñaandoon ak ñun ci télévision Futur Média 19h30 incha allah dinañ leen yaatalal yeneen xibaar fileeg boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendoog jàmm